jëf jii de rëy na fi noonu la comme da wax ne da ko tooñ ñi jëf-jëf jii non maa ngi sàkk ñun def ci ñoom yar bu toll ak jëf ji ñu ñu ñu def hmm. wax fi ko mbir mi toll daal ne dama leen di boole ak sa da ngay àndaat ak sa waajur yii sëñ Cheikh Abdou Latif ak sëñ sama doom ak ñaari commissaire yi. ñeen dem ba ca sëñ ba sëñ Mountakha commissaire fay leeral lii mu wax. kanamu sëñ bi te ngeen wax ñu wax sëñ bi itam sama ta li ma ci bëgg ma muy lii ma sànn ma ñaan ko foofu pour leeral ko moom sëñ Moussa li xew ma def muy feey yi ma leen wax ma leeral ko sëñ Moussa ñu yëkkati jataay dem sëñ Mountakha sëñ Cheikh Abdou Latif Khadim Diop ma doonoon ministre sëñ Moustapha Diop ñaari commissaire yi ak seigne Moussa ak seigne Moussa sama rek ñoo ñoo ñoo nekk ci néeg bi sëñ Mountakha nekk bi ñu agsee sëñ Mountakha daal laaj commissaire bi nu mu demee commissaire fay jë wax la mu waxatu ñun kat man kat maa yabal ña fa dem waaye da ki ma wan kër ga moo ma torom ndax dañoo jaawale kër Bassirou kër Bassirou Mbacké jaawale jëmmi Bassirou kër jëmmi Bassirou ba samay élément def yi ñu def ñoom nag ay ndaw lañ yoo xam ne toujours bu ñu leen di yàlla dañ leen di dénk waaye wax bu ñëwee lu mel ni maa ngi jégalu noonu la la commissaire Faye wax bi mu daanee de sëñ sëñ Mountakha moo yëkkati kan la sëñ bi wax dane ko mbir de ngeen jëf sama kaw njaboot ngeen ko jëf waaye man sëñ Mountakha maa jiitu ci tali bi moo tax sama njaboot bu defee lu wër bala ngeen ko jël si man ma leen koy jëbbal waaye maa ngi leen di wax ni njaboot gi ngeen jëf ci moom jëf ji sama njaboot la waaye daa bokk ci day day sama day day sama njaboot bu jub day sama doom bu jub dama leen ko wax ci moom ngeen jëf jëf ji daal ne loolu yi sëñ taxa sëñ Moussa di sàkku na muy yar boobu yi ci wax man ci sama wàllu bopp foofee la loolee laa cay sàkk te jàpp naa ni sax li leen ci war a fekk lii sëñ Moussa sàkku moo ci moo ci war a gën a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 defoo ko mu mën a dal nii ci sa kaw loolu la ñuy tuddee am natt ñi ma am natt ma su suñu borom bëgg dimbale bëgg laa yéegi foo xam ne say jëf yóbbu la la koy teg ñu ma kon yow yaa ci war a sant yàlla bi mu daaneelee ma ñaan ko ni ko damaa bëgg nga yëkkati kàddu daal di yëkkati kàddu leeral ko yi fee yi ñu ma def ci kër gi ni ma ko waxoon ci kàddu sëñ bu sax ba fee jeex ma ne ko nag sëñ bi lenn rek laay sant sama pet ñii dañ ko takkal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 yàlla daa dogal waroon nañoo mën a jaxasoo ndax ci njabootu daal mi ma bokk ci njabootu daal mi waaye suñu borom moo dogal jaxasoo bu ñu Basiiru Ture buñ ci jàkka ji lañ nuyoo ci pénc bi mësuma wooteel doom sama numéro aw ma numéro mësuma ko wooteel sama kër gii mësuma dem kër sama rakk yi yëpp itam li li amee laaj naa leen ndax amoon nañu moom benn jaxasoo nee nañ nii ma demee ak nii ma demee ak moom rek lañ demee ak moom moom moom ñu ma jaawalee itam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 bu fekkee déggoon naa ni am na mbokkum tali mu nekk kër gi mu ñu agressé dégg laa wax de dégg ko ci noonu ndax man yi nit ñi jote xabaar yëpp yàlla daa dogal fonk ma ko ndax man du ma déglu rajo du seetaanu télé daara jee ma nekk ci ndulo danaa fa def weer wala ñaari weer yitte may indi Tuuba daara je bu ngeen fa demoon bu ngeen ko xooloon daara yëpp laa wax bu ngeen fa fekku télé bu ngeen fa fekku rajo réseaux sociaux lu jëm ci wàllu internet itam yàlla daa dogal mel na WhatsApp laa ci bu fekkee ne ci bokk am na anam yu ñu ko mën seen bopp ba xam Bassirou Mbacké mas ci am benn compte ci anami internet yi mosumaa def vidéo mosumaa wax ci télé mosumaa jiwtu lu ma ko te waxtu ma changé a defal ma ko ko ab téléphone man ñaar yi lay jëfandikoo téléphone ak WhatsApp yàlla daa dogal ngir mën naa xew ba xew lu ma ci nit boobu téléphone wax ma ko wala mu ñëw ci sama ma du ko yëg ngir lii nag noonu laa giñ ñi bu fekkee ni dégg naa ko rek di ko wax ci anam bu ma ko a dégg wala ci rajo wala nit wax ma ko xew-xew boobu ci biir sama kër ma fanaanee tey yi na ngeen xam ne sama nji boobu dëgg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 bu am jàmm rek doon tax a mucc ak njub sayxul xadim seere na bis boobu du ko am ca du ko am ca baax moo tax man maa yóbbu ngir yi ci yoon bëgg mu leer ndax dañoo tax sama kër dama naa ak samay maa ngi nuyu sama avocat yooyu yéen sant bu baax na am na ci ak taxawaay ba jébbal nañ procureur sama plainte maa ngi sant foofu si autorité judiciaire yi ndax di leen samay avocat jébbale sama benn am nañ ci taxawaay rawatina procureur ñu koy sant bu baax na ci taxawaay ba def na ci yitte ba jox na enquête ba ña ko ña war a def enquête ba ba ña nga ca loolu daa de woon danaa dem yéen mbokk yi wax leen ñu ma def ak mbir yi ni mi ngi ci loxoy yoon te ci yóbbu maa ngi am yaakaar bu baax a baax nag ci yoon ni dana def liggéey ba dëgg feeñ dëgg ki moom suñu borom li ñu tiim laa xam ne mooy leeral dëgg ba bu ci Bassirou Mbacké waxuma mu ci taq bi nag yàlla waaye ñi ñoom ci seen i gëstu rek ñu mënee xam fenn ba xam Bassirou Mbacké dégg na li xew rek dégg dégg bu ñu amee benn information yi Bassirou déggoon na li xew rek kon bu boobaa nañ jàpp ne Bassirou taq na ci laa leen bu boobaa loolu laa sàkkuwaat ci sama kilifa sëñ Moussa Nawel ci la sàkku lolou la sàkku ci moom sëñ Moussa loolu laa sàkku ni len yóbbu ñoom lii du seen bir yóbbu ci yoon lolou sama mbirum boppa ma ko yóbbu maa yóbbu mbiri ci yoon lama len leen wax itam muy sëriñ Moussa Nawel ni sama kilifa ci sama jëwri wax ko sëñ Moussa moy bu yoon defé liggéey ba ni ma sunu bakki na ci wala la leen def bu len ma tinu ndax bu ngeen ma tinu seenu dara dana tiri ndax bu boobaa seenum njaboot moo jubati te bu ngeen ko tinoo seen dër tamit dama duma tilimal seen dër bu fekkee ni yoon seetal na ma nag bu boobaa yoon àdduna bépp danañ xam ne Basiru Mbàkke ab garam set na taqewut laa nit ñama def loola muy tooñ googu itam ci sama der ak ak ak sama yaram bu boobaa yoon it dana xam la ko ak la tax ñu def ko loola yoon dana def ak liggéey loolu daa leen ci mm. rek la demee